sañoon tey ñu téye justice bi ci dëgg téye ko ci démocratie ba nga xamante ne ñun dinañ mën a am liberté si suñu réew ndax si suñu réew lañ nekk waru ñoo mën a nekk suñu réew ba pare ñu ñuy tënk li nga xam ne nag moom la ñu war a def suba dama jàpp ne liñ ci war a gën a concentré wu assistant yi fi jot am ñu faxe mu bañ amaat ci moment bi parce que ni ñu tàmbalee ñu ngi provoqué lu mel noonu. dafa war a tëdd njaaxaanaay ku def lu dul yoon ñu convoqué la teg ci yoon du ko def muy ku bokk ci ñoom muy bokk ci yeneen ñëpp violence moom kenn du ko ko cautionné kenn ndax ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bu baax ka ñu la bokk. wax dëgg yàlla war nañ ci coocuwaat lu bari quoi ndax euh, justice Sénégal moom xam nga Sénégal moom gars yi sax dañ naan Sénégal ba xam am na justice ndax gars yi moom leen ndax la ñuy àtte gis policiers yi zemi yi jàpp booy ndaw yi di dóor di gaañ loolu c'est pas normal quoi xam nga Sénégal. ñun sénégalais dañoo war a moom suñu bopp. yu si war a tukki maanaam ñu fexe ba code yi fi nekk kaasoo mu nekk code pénal code de procédure euh, code de procédure pénale Sénégal bi am si accès xam lu code yi wax. tey par exemple bu ñu jëlee Sénégal bi nga xam mu ngi si mbedd mi. kooku boo ko waxee luy code xamu ko lu code pénal xamu ko lu code de procédure pénale xamu ko lu code civil wax xamul dara si ce que ñun jotul tey suñu langue olof ñu ñu ji ñu def réforme boobu quoi jël langue jur euh, code yi. ñu jël code def ko ci langue olof jëmale ko ci mbeddam ñëpp xam ko.